nuyu bu baax a baax man la alaaji bugg a Gambia bugg a Gambia daaw ma ci xel nag ku ma gën a bugg a Gambia amut bugg nag jigéeni Gambia bu baax moo tax fu ma taxaw ne muy bugg a jigéeni Gambia bu taxaw suñu kanam. bay naa ngoog nag taxaw sa boor. bu dee biir Gambian Talent bu dëgg <laughs> xam nga Gambian Talent. Uh-huh. bi mu amee ba tey. MTH uh-huh. amatul. mais dem school ñu gis yenn ñoo xam ne nekk ci gannaaw. Mm-hmm. ñu naan ne ñii lii la la la ñu intelligent ñu naan ñooy mm-hmm. Gambian am ba mm-hmm. intelligent ndax talent bi dañ ko tasaare ci réew mi. mooy xam nga man bi may dugg si fii bàyyi loo ma xel dama ñëw ba si bunt ma taxaw maa ngi xalaat bu ma dugg lan def ak lan wax. ci kaw ma gis Gambian promotion la de yaakaar. <laughs> mu ngi noonu. mu mel na nag affaire bi dañ ma koo sëf nag ma dugg ma Hmm. li nga def rafet na li nga def bax na yëpp ci talent bi la talent bi dal buñ ko tasaaree ba léegi kenn satul ganna talent bi dañ ko walé fi di Gambia talent promotion ci biir keur gi dara du fi yoon xam nga nag tey day ajuma <laughs> ma def ni rek <laughs> ma defaale nii ni xana yow <laughs> man nga doon xool li wasal xoluma la nak xol ya dajé rek ñoo ñoo exis si Gambia talent ah. du lolu nak ah. yo xam nga Gambia talent di joxe talent di indi talent bi fu ne ak talent bi moo daal lii moo tax nag yow mi nga xam ne yaa may xool nii mm-hmm. maa ngi lay wax ne nga téyel ma Gambian Talent fukki loxo ak juróom dama laa lu tax lu tax parce que dafay dimbali réew mi bu baax a baax a baax te bëgg nañ nag xoolal fi mu toll nii. Mm-hmm. mu dem fu ko gën a kawe. waaw waaw am nag nag ay caméraman yu xereñ nekk ci biir kër yi. Ah, mën seen liggéey. Ah. directeur bi nag moom moom moom su ma ko gisee rek damay kontaan. ah mooy su ah, ma nduruwaale ma. wax na de xaar ma ma dem te ñëw. <laughs> da ngay dem te ñëw waaw loo def neex na. comme que Gambian Talents nag suñ ne talent rek talent bi lépp la nekk si lu yëngu rek mooy talent bi. talent bi di ñun ñuy artistes di dem ak moom di fanaanoo moom di eewoo moom mooy Gambian Talents promotion ñun yii la ñoo yëngoo Gambia nte le bale Gambian Talent Promotion bumu bi ka fale ko amanke fentina amanke Gambian Talent Promotion porta nyi kono fentes mo yala ja mbita ñatole rek Gambian Talent with the Gambians with the world everybody inside the Gambian Talent is Fatima Cheers.